nu kene xewana jamano rek eh, yaam xadna ka yoon fu cosaan te cosaan ka waro damel ka waro fonkeel te xep oxu refna mbino seereer rek ru xaƴona ke caac ke xaƴ'ina me rek waagay jeg safaan gon nu ku waagoona ref rek ku xewna rek fata fokate ke caac ke xaƴ'ina me ken tax i yaaj nayo mayu waa sëñ Moustapha waa bon sëriñ si nga xamante ni tey doo ñëw di bës bi laa mën a wax sax waaw si artistes yi waaw di wax lu ne lu ñaaw lu ne ñu koy wax si artistes yi bon looñu ñooñu ñooñu loo xam ñoom loo leen maanaam xam nga sëriñ moom pour man ne man sëriñ laa yomb na waaye lan moo tax ñuy wax sëriñ ak lan moo tax ñuy wax kii sëriñ la xam nga loolu bokkewul ak ki nga xam ne moom nee na moom sëriñ la wala ñu ngi koy woowee sëriñ maanaam. nit ki nga xam ne day yëngu ci wàllum ñaan nekk ab ñaankat wala nga nekk ab fajkat yaa xam loo doon damaa yaakaar ne war ngaa mën a am beneen jot wala nga am beneen liggéey bu bokkul ak nekk ci ay woykat ak ay mbëri làmbak ay théâtre kat pour man loolu jàpp naa ne nit ki koy def xëy na foofu la gën a jege sax kene moom lijjanti aajooy jaam yi ndax yaakaar naa ne bu fekkee da ngaa nekk nit koo xam ne nit ñi dañoo war a xëy di la di seen soxla wala nit ñi war laa wala wax leen wax la seen soxla yaakaar naa ne benn nit benn nit warul mën a occuper sa dund bépp ba nga def ko ci moom te yow nit kooku nga xamante ne moo xam muy woykat moo xam muy mbëru làmb bi kooku yow yaay daw di wuti ci moom mais moom wutiwul ci yow ndax li tax yaay daw di wuti ci moom mooy yow yaay toog ci internet bi naan diw sàngam maa koy ñaanal wala diw sàngam maa koy defal nangam wala diw sàngam mbër sàngam wala woykat sàngam maa koy defal nangam léegi ana sutura léegi yow nit kooku ngay wax loolu métier bi mu nekk dafa am ñum ci nekkal te xam nga Sénégal moom dangay baaxoo bu nit ki nekkee ci yoon sax ñu ne diw de dafa mystique wala bu nit nekkee di def daal ñu ne ah diw de moom dafa am gàllaaj kooku day bañ loolu parce que moom dina maanaam loolu nit ñi di wax sax moom du ko gis te du toog fenn ci àdduna ne diwa may ñaanal wala mu toog fenn ci télé ne diw ba ma joxee nangam ba ma demee ci bërëb sàngam moo tax ma am nangam nga loolu moom kenn du ko wax. léegi yow sëriñ bi nga toog ni diw sàngam lee mu am man maa ko defal wala mbër sàngam wala woykat sàngam maa ko defal li mu am léegi loolu ay kàcc la kooku dina la seexloo tontu wala dina am kersa ne la li nga may wax néexu ma waaye xam nga ne li nga koy wax néexu ko te yow foo toll di mbubboo nit kooku naan maay defal diw nangam maay defal te yow nit ñi nga xam ne ñoo lay soxla ñi tax ngay ngay wax ñu lay woo di la faj loo seeni aajo sa digganteeg ñoom léeru la nga séq ak ñoom liir wala dugalal nañ la xaay sax amaana ñaanal nga leen lu baaxul nga bloqué leen wala ñaanal nga leen nanguwul nga wax leen ay lay ay daadaa wala ñaanal nga leen nanguwul ñu la woowee doo leen jël te yow loolu noonu nga war ko lijjanti lijjanti woo ko dem naan diw sàngam woykat sàngam maa koy defal nangam wala woykat sàngam maa koy defal nangam te tey tey jii nii nañu moytu loolu sëriñ si man ngaa bëgg nit ba koy waxal lool wala nga bëgg ci moom pouvoir wala nga séq ak moom loo xam ne nii wàllum ñaan la tey nga taxaw ne mbër sàngam ndax xam am la mbër sàngam maa koy ñaanal pour mu daan wala woykat sàngam maa koy ñaanal pour ab soiréem fees wala ab soiréem nàngam am na ñoo xam ne yor nañ xam-xam yoo xam ne bu leen neexee boo nee woykat sàngam maa ko yoral soiréem sàngam yor nañ loo xam ne bu ñu demee def ko fa fa soirée bay amee bu soirée bi commencé gendarmerie ñoo koy tas ndax xeex dafay am dañuy xeex yaa ngi dégg wala soirée ba du neex wala kenn du fa dem gon yooyu yu matam moytu la gis nga nit ki soo seqee moom mbirum ñaan day nekk sutura sa diggante ak moom bu ngeen séqee mbiru àdduna nag yéen a xam nu ngeen ko bëgg a fësale mën nga koo fësale waaye mbirum kanta diw maa koy ñaanal wala séq dama ak moom loolu jërul fësal koo gis mu koy wax waxul dëgg ñaanalu ko ki ki muy wax gëmu ko ak sëriñ bu ko man di wax nag li ma lay wax nii am naa ci firnde te am naa ci lu ma leer koo dégg mu naan diw sangam maa koy ñaanal wala maa ko defal nangam kam koy wax gëmu ko da koy mbubboo wala am na lu leen boole leneen lu bokkul ak ñaan yaa ngi dégg gon lolu nañ ko moytu lolu affaireu ñak fayda te ab serigne wurtu ñak fayda ab serigne bu succès ngay wut wala beus yow yaay def lu tax nit ñi succès bobu ñëw ci yow succès serigne xam nga moy lan kat bobu ngay wax am problème wala kat bobu am problème wala mbeurum lamb mom am problème ñew ci yow yaakar la sukku ci sa kanam nga ñaanal ko ba aajom bobu faju fu mu toll di la titero mo gën yow serigne bi nga wëlbatiku di titero kooku te waxuñu ko lu nax nit ñi rek lañ ci jublu moo ñii naan ay soo defee nangam wala secret sangam boo ko defee am nangam yow léegi nga toog ci télé di jàngal nit secret sangam wala boo defee nangam am nangam wala boo wirdee nangam am nangam waxoo ko ngir nit ki sa bopp a tax ngay wax ngir bëgg ñu xam la wala bëgg ñu déglu la moo tax nga wax ko te yàlla tax li tax waxoo ko te yàlla tax moo tax mooy xam nga ne boo wirduloowee nit dara nit ki dégg ko rek ci tele wirdu ko wala mu def ko tëdd guddi ñu ne ko saraxeel nangam doog dem nangam wala tëdd guddi ñu won ko loo xam ne ay tegtal la pour mu war koo def pour loolu bënn ci moom wala loolu jariñ ko nit ki xamut lu mu war a def loraange mu ngi koy dikkal yaa ngi koy lorte xamoo ko parce que lépp loo gis ci àdduna dafa am ñu ko war a def xam-xam yombul xam-xam du ay caaxaan xam-xam du ay waxu falaa falaa nii wala defal nangam wala boo defee nangam yaakaar na ñu bëri loru nañ loolu moo leen lor te ñi koy wax en général ñu ci bëree bëree bëree bëri bëri na ci ñoo xam ne sax maanaam bëri na ci ñoo xam ne sax dafa néexut a wax waaye am na ñoo xam ne tey dañuy mbubboo ay sëriñ sëriñ sàngam mooy sama sëriñ wala sëriñ sàngam laa gëm wala sëriñ sàngam moo def ci man nangam sëriñ boobu deful ci yow dara da nga koy mbubboo ngir nax nit ñi ndax xam nga ne Sénégal am na lu ñu gëm gon ñitub ñaankat du mbubboo sëriñ wala mbubboo ab sëriñam wala mbubboo tarixa bu mu bokk pour doon dara da ngay gëm sa bopp liggéeyal sa bopp won nit ñi lu tax ñuy ñëw ci yow di la ñaan loo won nit ñi lu tax ñu gëm la bu la nit ñi gëmul nga xam ne dañ laa gëmul bu ñëwul ci yow nga xam ne li nga yor da nga koy téye parce que sa yëfi bopp la mais bul won nit ñi ne maanaam man fii laa bokk wala lii laay mbubboo wala nangam pour nax nit ñi loolu baaxul nañ ko bàyyi loolu baaxul nañ ko bàyyi waaw te jéem a xool li nga xam ne mooy yoonu njub ñu nekk ci am na yoo xam ne ay caaxaan la rek waaw. ay caaxaan la parce que temps yii si si da mooy. am na benn ndaw suñu génnoon temps yi si net bi. waaw doon benn sëriñ taxaw nii dafay faj. dafay faj wane ko wane ko bon simi ndaw si simi ko carrément te ba tey kenn amul suite ndax fay faj na ko wala faj waaw. man yooyu sax sama yoon du ci nekk ndax xamul tax Sénégal ci boppam dafa bëri ñoo xam ne bugguñu ku leen wax dëgg te bugguñoo gis dëgg te bu ñu tegee dëgg seen bët dañ ciy joggi seen tànk yaa ngi dégg tey da gis comme loolu nga wax noonu. ku def loolu wallahi watallahi képp koo xamante video nii nga nit di ko faj vidéo ko bu doon sa waajur wu jigéen doo ko te kenn ku ci nekk sa waajur day feebar sa day febar. te gisagoo fi ku video waajuram wu jigéen di ko faj go fi ku vidéo rakam di ko faj te pourtant dañuy feebar de dañuy dem ci ay sëriñ di faju dañuy feebar mais duñ leen video vidéo nit loolu mooy li ma la wax léegi bëgg sa njariñul bopp la mais nit ki yow yaa bëgg nit ñi gis li ngay def pour gëm la moo xam mu nekk dëgg moo xam lu nekkul dëgg yaa ngi dégg mais faj jotewut ak vidéo nit ki dara boo bëggee preuve nee naa la da gis ko koy def sax naan preuve laay wone preuve bi ngay woon koo koy won ki nga séqal nga war a woon preuve mu gis ko dem ci Sénégalais yi naan diw moo dàq faj am naa ci moom preuve mais wane nit ki koo gis mu koy def amul maanaam du ma ne amul xam-xam mais njariñu boppam moo tax mu koy def te affaire affaire naaféq la affaire ñàkk respecté image doomu aadama la yaa ngi dégg nit ki loo séq ak moom ci ñaam man ba ma nekkee fii ba léegi fii di faj mot na fukki at man fajkat yi ma njëkk faj fii bëriwul yaa ngi dégg ñi ma njëkk a faj bariwul ndax mas ndax xanaa xanaa ba may faj ba léegi xanaa faj naa lu mut fukki nit am déet tafa faj naa lu mut fukki nit xanaa man dama tal nit ñëw ci man feebar toog fii ma war a xool kii nan laa war a def pour mu wér may wut jël ay caméra wala may jël ay téléphone di ko filmer aw jot boobu aw ma jot boobu ñaar yi moo am ki ñëw nangu nga filmer ko dafa jaaxle mu wóor ko ne yaakaar na ci yow bu la jànniwee wala mu bañ nga filmer ko du wér yaakaar jooj lay am wala ki ñëw nga kompaloo ak moom jox ko xaalis wala mu nekk sa nit nga wax ko ne ko bàyyil ma filmer la ngir nit ñi xam ne lii laay def mu nangu ñaar yooyu képp moo ci am mais kenn ku nangu ci ñiy feebar di faju nañ ko wax te yàlla tax ñi ko massa def ñep kenn nangul kula filmer di woné sa image nit bu yoré rap nga filmer ko woné image am légui mu wër mu déllu wat fam dëkk nit ñi duñ ni ah ki lañu gisoon muy faju ay rap de loo defati dañuy japp né ab dof nga loo defati dañuy jàpp ne sarab yalla ko def loo image bobu kan moko nangu gon kay ki fébar nangul ko filmer hôpital yi ñaat nit ñoo fa xey di rang ñom li def professionnel la est ce que mas nañu filmer nit di ko wane ci ci ci média mi naan li lañ faj ak lé lañ def amul gon faj affaire sutura la mais yi ci am legui ni affaire folklore manam li ci nit ñi bëgg moy def seen bop essar fajkat yu bari lañu bëgg def seen bop sr bëgg nek ay milliardaire bëgg nek ay millionnaire lool lañ ci jublu te ci kaw nit ñi image yoyu ci lañ mëna sukkandiku pour nek loolu mais du deug ku ko ci def ku ne li ngay def du deug sa mbiri bop motax nga koy def man sama yoon neeku ci da ngay deg sax ku def dara ba pare def lu ne weng bu mu wóor li nga def yow dara du ci deug nga ku naan si manam ku ci bëgg dépasse mën ngay tudd te loolu défo waxo ko ngir xam nga lan motax nga wax ko wax ji ko wax da nga bëgg wax ko ngir sëriñ yoy buñ bëgg di jog ci wax kaddu gogu jam leen mais ki wax té yalla tax wala ki wax ngir dëgg manam yoonam nekkul ci loolu kan fi kan mo fi yaakar ci nit dara ah am sëriñ yo xamante am na sax sëriñ yo xam ne dañuy dem ci seen morom di leen raggal seen ginnaw ñak jom weesuwut loolu yow na sa nawle la nga war koo teg ci yoon wala nga war a nekk sa kër muy liggéey nga liggéey mais da ngay toog di ko ragal ginnaaw ngir bëgg a xamante moom wala ngir bëgg a am wala siiw gu wala ragal goo ko ragal siiw yàlla moo def ci am na ñoo xam ne dañuy wax fii ba déwén kenn du leen dégg am ñoo xam ne lu ñu def nit ñi tudd ko loolu yàlla mooy def loolu mais bu loolu amee ba pare na nga ko rafetal rafetal ko mooy image bi nit ñi di séentu ci yow chaque jour dee ko wone mais Sénégal da gis koo xam ne da wóor ne li muy def du dëgg am ay nit ñu taxaw fële ñu fay leen wala ñu bëgg ñu xam leen wala ñu bëgg ñu dégg leen wala ñu ne wala kañ koy séqal bëgg leen a woo wala nit koo xam ne day wax loo xam ne wóor na ko ne ki mu koy waxal daa bëgg mu am koom ci moom wala succès bi mu am ngir mu bëgg xamante moom tax muy wax ci yow loo xamante di dal ci kaw askan wi te sëñ bi nit loo bëgg bëgg bëgg bëgg nit wala loo bëgg bëgg xaalis saw askan ñoo la war a gën a ma sa der bii sa deru yaram bii maanaam sàmm sa der moo ëpp farata koom mi ngay am ci àdduna image bu rafet image boo xamante ni jomb-jomb lu ñaaw la moo ëpp solo maanaam image loo xam ne danga koy am te bu ëllëgee ñu saaga sa ndey loolu nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi fii kenn mënu fee xoqatal kenn man wutumaa xamanteeg benn sëriñ neexalu ma benn sëriñ parce que faalewu ma ci benn sëriñ bu yàlla bind ci sa xam-xam wala man ma yaakaar ci kenn benn xam-xam amul sëriñ buy taxaw Sénégal ba mu daj génnewuma ci kenn Afrique ba mu daj génnewuma ci kenn benn sëriñ bu yaakaar ci yow ma gëstu ci yow xam-xam wala ma soxlaal la dara wala nga taxaw ne maa jàngal muudu xam doo ko gis ci kaw suuf wala ma gis ma may fajee dara nga lii maa ko jàngal muudu amul fii ku ko am na ko bind ci commentaire yi wala ku ko xam na nga gëstu ba xam ko ne xam naa ko dëkk sàngam amul ku ma jàngal xam-xam ci kaw suuf si yaakaaruma ko ci benn sëriñ sama bopp ci laa ko yaakaare parce que sama digganteeg sama boroom la xam naa li xew yaa ngi dégg kon man wutuma sëriñ bu ma neexal wala sëriñ bu boo xam ne damay bañ lu ko naqari ba tax muy def dara ma koy bañ a wax wala nangam sama yoon nekkul ci loolu li ma nekk mooy wax li nga xamante ne moo nekk sama dënn wax dëgg ku ko dégg xam ne lii dëgg la nga xam ne loolu la yàlla dogal ku dégg xam ne kii la muy wax du dëgg loolu loolu la yàlla dogal mais li ma war a wax dinaa ko génne wax ko mais nit ñi dañoo war a yeewu affaire sëriñ liñ ciy boole lépp bokku ci bokkut ak liy faj aajo ñiy jóg di ñaanlu ji ñoo war a yeewu xam fi ñuy ñaanlu xam fi ñu waaye yow joxe naa fi deux cent mille la ma doon wut awma joxe naa fii trois cent mille la ma doon wut joxe naa quatre joxe naa nangam joxe naa nangam te amoo ko kon kay war ngaa xam ne yow ca la nga jóg di dem du dëgg deux cent mille foo ko joxe ngir faju aajo lu mu gàtt gàtt war nga cee mën a gis lumu mu tuuti tuuti sëñ bi am déet waaye nit ñi lu ñu jàppee sëriñ mooy sëriñ la ngaa war a sol jasneer bu ngande yor image bu rafet yor salon bu rafet yor oto bu rafet ñu doog di jàpp ne boroom xam-xam baa nga ne te loolu sëñ bi sàcc bi mën na ko client bi mën na ko am de kii liggéey di jaay magasin mën na loolu ki yor métier mën na loolu loolu matériel la rek pour àdduna jotewut ak xam-xam dara jotewut ak nit ki war a mën dara dara xam nga loolu lan la nit ku nekk yëg-yëg ba mu am di ko doxee waaye xam-xam takkuwul foofu nit ki lay fajal aajo am na ñoo xam ne tey boo demoon lal yi ñuy tëdd lal bi ñuy tëdd mën naa jar dix-huit million yaa ngi dégg ne ay sëriñ lañ te dara xam-xam nekkut ñoom pexe lañ def ba am xaalis nga dem ci sëriñ boo xam ne lal ba muy tëdd mutul 3000 francs te lum la ñaanal yàlla def ko nga gis sëriñ boo xam ne ni amul mbub mu mu sol la mu sol sax doo xoolee bu baax day bënn lum la ñaanal yàlla def ko lum la wax loola du dara du ko tuxal nga def ci koo xamante ni nii dara lum la wax suba ba ngoon ay kàcc la affaire bi du foofu affaire bi dëgg la ak jub ak xam-xam mais booy def dara ngir sa bopp nag noo mën a def pour loolu réussir da nga koy def bu fekkee dangay ngay def pexem dajalem alal noo mën a def pour am alal da koy def mais ku ci nekk bëgg a def ngir am alal wala am koom mën nga koo def mais sëriñ léegi scénario la ñuy bind teg scénario mooy am na site internet yu bëri kompaloog sëriñ di nax nit ñi kompaloog sëriñ si nax nit ñi mooy nii ngay def pour nit ñi gëm la lii ngay def pour am lii lii ngay def pour def lii léegi nag nga def loolu ba pare yow kooku noonu la def loolu lekk ci lim ci am yow nga lekk ci li nga ci am léegi ngeen dem nga jël benn nit boo xamante ne amaana sa mbokku dëkkandoo la wala sa mbokku xarit la wala nangam ak i nangam nga nax ko lekk xaalisam ci loo xamante ni ay tappale la nga gis woykat yoo xamante ni ak ay mbëri làmb yoo xam ne ak ay théâtre kat yoo xam ne dañuy dem ci sëriñ naan ko yaa fi man yaa fi man yaa fi man yaa fi man fekk na ñoom li ñuy wax gëmuñu ko seen poos a tax ñu koy wax du dëkk nit ki boo séqee moom lu rafet séqal ak moom li nga séqanteeg moom ci sa digganteeg moom mais bu dee ci côté cadre liggéeyam lépp lu la ci wonul ba mu nekk dëgg loo ci waxte du dëgg di nga ko layoog suñ borom képp koo xam ne dégg na sa kàddu googu bëggam la dem ci kooku jox ko loo xamante nii yow yaa tax mu jox ko yow ci boppam bokk nga ci loolu te tey yow mënoo nekk ab artiste yàlla dimbale la ngay rampe di rampe di rampe ba am succès ba sénégalais yëpp bëgg la nit ñi jublu la mel yow noo xam ne loo leen wax ñu gëm ko di la roy di def say def di def ne yow nga wëlbatiku gis benn nit bu toog fële rek fexe ba gis nit xamanteeg yow wala fexe ba jaar fenn ba xamanteeg yow parce que affaire bi ay seen la donc dangay gis nit naan ko waaye sa waa ji dama ko bëgg wala sa waa boo fexewoon ba mu ñëw ci man léegi nga fexante ba lié ak kooku kooku ñëw sa kër nga yëkkati benn un million wala benn cinq cent mille may ko mu génne ah sama waa ji di daa mel ne nangam léegi nag lu mu xamante ci lu baax rek ñëw xëpp la ko waxal la ko del xool moo tax loo ci gis koo gis mu dem ci kër jàmbur ne ko yow la yow la bu ëllëgee mu dem kër keneen ne ko yow yow la léegi ñooñ di ñëw ci kër sëriñ si naan leen yow la yow la ñooy demaat yeneen kër sëriñ yi di di feeñalaat say secret mm. ak bu nit jëm si woon ci ñu ne xamul dara loolu nañ ko moytu sëriñ dafa war a am jom dafa war a am jomb-jomb dafa war a am ñu war a àndal am ñu war a xaritool am ñu war a jëflanteel am na ñoo xam ne ñaan kese moo war a war a boole ñoom am ñoo xamante ni kóllëre rek moo la war a booleeg ñoom waaye am na image boo xam ne ci kanam te yaakaar naa ne kii dundu kii dund ci kaw suuf am ñeen fukki at dese nga yeneen ñeen fukki mbubb yoo su war a sumi bu la yàlla mayee fan wu gudd kon war ngaa xool bu baax sa image li ngay def nga koy xam waaw. waaw sëñ bi jamono gis ni yi toj na waaw ay xale yu ndaw yoo xamante ni ay ay artistes lañ mais dañuy jëf yaramu neen génn seen aw loolu damay laaj ndax jëlee ndax ndax doon ay rab su nekkoon rab ñoo war a ci di di di di di di def loolu nit ñi. loolu daal benn waaw Tafa <laughs> rab moom dafa sonn rab ak jinne dañoo sonn fii ci Sénégal ndax lu ñu wax ñu ne rab yeeg jinne yee ko def te li ci rab ak jinne di def lu néew la ah ce que xam nga ne jinne soo ko doon misaal tey juróom-ñetti dooley juróom naaru góor la yor nit ki mën naa yor loolu duub duubleem maanaam ñaar fukk ak benn wala ñaar fukk ak ñaar ci doole kon yow yaa ëpp jinne doole ah yaa ëpp jinne xanaa xamoo ne ni nit di jommalee ni nit di jomma ni jinne di jommale nit noonu la nit di jommalee jinne jinne dina gis nit jommi ba xam ne dafa jommi yaa ngi dégg noonu la nit di noonu la jinne di jommale jommale nit nit di jommale nit noonu la nit di jommalee jinne yaa ngi dégg kenn ku ci nekk dafa am lu leen liyee kenn ku ci nekk am foo nekk kii nekk fii yaa ngi dégg léegi nag mën ngeen a defante nii te maanaam séqu leen dara lépp lu leen boole rek ba ngeen liyee ba war a séq dara rek loo xam ne ci seen biir la rek mu ngi mel ne tey Tapha yow mu séq ak yow dara rek loolu moo leen boole loola nag mënuñ koo leeral ndax bokkul ak li ñuy wax mais jinne neew na luñ ko bëri na luñ koy jiñ te du ko bëri na itam sëriñ yoo dégg ñu naan am naa jinne am naa jinne barke Seexul Xadim man sax du faral di wax di waat mais wallaahi buñ daje woon ak jinne jinne foowee leen musuñoo teg ci seen dund jinne ci seen dund musuñ cee teg bët jinne musul am ci àdduna ñu ci bëri te gis naa ci ñoo xam ne sax daanañ wax am nañ ay nangami jinne gis naa jinne toroxal leen yaa ngi dégg kon am na loo xam ne bokkiwul xam-xamu jinne xam la xam-xam la am na mais dafa am loo xam ne nit ki lay déglu war a am jële ci yow njariñ wala nit ki lay déglu te moom nekkul sëriñ am na loo xam ne yoonam nekku ci engagé wu ko xam nga lan moo ko engagé ak lan moo ko ñor aajoom faju mais ay jinneeg ay yee ko man nag comme mbiru àdduna boobu nga wax comme ñooñu doon wane seeni awra ak yooyu man yooyu du ma ci wax man lu jëmul ci côté affaire ñaan man dama ciy maandu parce que maîtriser wu ma ko xawuma ko parce que du ma ci wax parce que bugguma ku ma yàpp te bugguma seqal nit loo xamante ne nii maanaam ay fekkalanteeg demalante la moo tax man du ma du ma wax ci mbiru comme noonu ñu koy waxee naan ay actualité ak ay yooyu parce que nit ku nekk dafa am looy def lan koy defee yow yaa xam li tax nga koy def mais ci côté bi ma nekkee muy ñaan lu ma ci gis te war koo wax te jàpp ne lii lu baax la dinaa ko wax su ma jàppee ne lu gën la ci ñiy ñaan lu dinaa ko wax mais beneen côté sama yoon nekku ci parce que côté bi ma nekkee kiwul ak ñoom fi ñu nekk yaa ngi dégg man dafa am ci lu may dox dafa am fu ma nekk te fi ma nekk nit mënu ma fa jële yaa ngi dégg tey bu nekkul woon yow mii toog ak man yow yaa ma njëkk a dëpp caméra bu nekkul woon ak yow yaa ma tooñ sax ndax yaa ma ko commencé ba ma dem ba mucc di ko di ko di ko di ko def <laughs> su ma sañoon su bu doon tey duma ko def mais mënatuma koo bàyyi ndax yàgg naa di ñaan fii lu mot fukki at musumaa génn kenn musumaa xam te teewut maa ngi doon liggéey di am samay teraanga di ci séq ak ñi ma war a séqal waaye lii dafa mel ne comme man naa ko waxee sax tàmm gu bon la waaw nga ne ko tàmm gu bon la. sëñ gis tamit am na sëriñ boo xam ne temps yi génn si internet benn waaye bu mu ñaanal xam na ay sarax waaye defaat beneen vidéo ni sëriñ sëriñ bu siiw la fi te dégg naa ne mu ngi rey moon moon yi si loolu. sëriñ bi nu mu tudd. waaw kum kàng de la tudd xaw ma lan daal tamit <laughs> xeesal xam nga man. Hmm. loolu yàlla xam na ne wallaay gis nga affaire kiraama yi ñu doon wax nii ci dëkk bi yàlla seeda na ne yëguma ko woon damay dem Touba ndogu yi man koor gi sax bëri na lu xew ci ci dëkk bi ci koor gi te yëguma ko ndax man ndogu ya laay nekk yàlla seeda na ne maanaam loolu ngay wax noonu man yëguma ko man lu ci bëree bëri duma ko yëg ndax daanaka léeg-léeg sax du ma am jotu comme seetaan man mën naa laa wax ne la mën naa la wax ne lu mot ñeenti at a ngi nii wala juróomi at seetaanuma télé seetaanuma télé dégluwuma rajo lii nii léeg-léeg maanaam mën na maa toog ay fan yoo xamante ni duma xam lu xew ci ci ci internet bi yaa ngi dégg loolu dañ ma ko nettali comme ni nga ma ko nettalee nii waaye nit yaa xam daal moom moo xam lam séq ak moom ak la nit ka séq ak moom bañ jëflante ci côté bu man di doon man chaque jour damay wax ne kenn ku ci nekk la nga nekk nangul naa la ko waaye lépp loo ciy def na nekk dëgg lépp loo ciy def na nga sàmm ne bis dina ñëw te affaire u sëriñ dafa garaaw de non moo mais dóor yi nit ñi nañ ci sant yàlla gis nga ñuy jël xaalis di ko jox sëriñ si ñu koy lekk wallahi sëriñ boo xam ne da ngay jël saraxu nit di ko lekk te génne loo ko sarax wala ngay fayeeku nit xaalis di ko lekk te ñaanaloo ko wala defaloo ko la mu bëgg wallahi ci paralysé ngay mujj wala gumba wala manam, fokk am lu la dal moom waaye nag sëriñ man ngay dox mu neex lool maanaam sëriñ beew ci dafa yomb ndax boo téewul sa bopp poñewoo sa bopp rek man nga bew bew gog ngay bew dina dem ba nga japp ne aduna bi bu doon wacc sax nga téye ko aka jaram moytu ndax ci kanam la lima lay wax ci kanam la ndax ñun yag nañu gis ay mag ñu daan ñaan de yag nañu gis ay mag ñu daan ñaan ci ñaari côté yëpp mag mo xam day ñaan ba xey gennu aduna manam suñu borom da koy dimbali aduna am day sedd lol nga gis ku daan ñaan dem ba nek mag aduna metti lol yoy nak dafa mata baye xel dafa mata baye xel te limay wax chaque jour. li may wax ni yoonu yoonu yoonu yàlla mm. <laughs> dafa yaa ngi laaj lu yoonu yoonu yoonu yàlla mm. dafa dafa dafa xat nii la def mm. génn kilifa moo ma ko waxoon mu ne ma yoonu yàlla nii la def dafa xat sooy dem booy dem nii lay def nii nii nii nii ba ubbeeku def nii yoonu saytaane nii la def waaye looy gën a dem muy def nii nii nii ba tëju bu tëjoo rek musiba dal la waaw moo tax lu ci bëri dafa mot a sóoraale ak di nang nit day nangu am kilifa nit day nangoo am kilifa est-ce que man xam nga ne su ma neexoon kenn du ma yilif su ma neexoon kenn du ma yilif ndax itam ba ma juddoo ba fii may wax ak yow nit musuma kalaame ak sama waajur nit musuma kalaame ak sama sëriñ musuma def nit lu ma toogee ñu ne ma yaa ko tooñ wala ma werante nit wala ñu ne ma kaa yaa fi waxun lii ci Sénégal fii musul am musuma siq ak nit itam lenn loo xamante ne nii ci wàllu xaalis wala dara loo xam ne mën na ma balaame ne ma lii yaa ma ko def seetluwuma ko te fàttalikuwuma ko fàttaliku ma itam ci jàmm gën gii ma dëkk ba ci Tuubaa ga ma nekk ba ci fu ma man di nekk ci àdduna fi ma jot a teg sama tànk yëpp foo xam ne am naa fa volontaire ak nit koo xam ne rus naa xool ko ne ko maa ko def lii lu ñaaw wala nangam moo tax yu bëri dama koy moytu yaa ngi dégg waaye lépp lu nit di def na xam li tax mu koy def kenn ku ne la ngay def yow yaa engagé wu yaa xam la tax nga koy def waaye daal li ci ëpp solo mooy xam ne nit ki nga koy séqal doomu aadama la yow te yàlla moo leen boole sàkk lepp loy sekk ak mom na nek sa digënté ak doom adam muy lu rafet. question bi ngay daw mooy lan moo yow doo koy doo laaj xaalis bu bari doo doo laaj xaalis bu bëri. déet Tafa damay fay ak kay. mais man suma la gis ci ñëpp fii ñëpp suma la gis nga la xaar bu bari Tafa xam nga ñaan. dafa bëri ay façon am ñaan yo xam faaw nga fayeeku boromam xaaliss bu bëré bëri waye day fekk ñaan gi laaj ko. Mm. nga war ko ko defal muy lu leer. Mm. am ñaan yo xam man nga fayé fayeeku boromam lu yam am ñaan yo xam man nga wax boromam loo ma jox baxna am ñaan yoo xam ne mën ngaa mën ngaa wax boromam ne ko bul ma jox dara ñaan yooyu nag lu ci ne mën na ci am yow da nga may booleeg ay nit danga nga may booleeg say mbokk da may booleeg say xarit am na cër bu ma yàlla booleeg yow ma séqu koog yow dama leen di defal li ñu bëgg te du ma soxla seen dërëm parce que mën naa ko te du ma wàññi dara am déet wala du noonu. am ñoo xamante ne nii la ñuy bëgg faaw nga fayeeku leen parce que dina am yeneen yu mu laaj yoo xam ne sama diggante la ak sama liggéey. am ñoo xamante ni la soxla jërul sax fayeeku nit lu mu teg sa loxo baax na man nu ne laay liggéeyee am nit mën na maa woo ma ne ko loo ma yónnee baax na mu yaakaar ne kii eh, xëy na nangam wala nit woo la nga laaj ko lu bëree bëri mu yaakaar nangam waaye loolu lu ci nekk ki war a ñaan lu ci yow wala ki aajoom war a faju yow nga yor liy faj aajoom ak lu man di xew boo ko laajul woon dara ak boo ko laajee lu bari ak boo ko nee loo teg sama loxo baax na alaakulli aalin loolu day ñëw ci yow parce que yaa yor war a faj ay aajoom ñaan dafa am luy woote ci ñaan. ñaan nekkul ne wax nii rek nit ki dégg la rek dafa war a ñaan lu si yow déedéet ñaan gu wér loolu amu waaw kay ñaan gi wér ki nga yor ñaanam ala kulli alin même boo waxul woon ci média ni sax faaw dina ñëw ci yow parce que dina am lu leen lii ba ngeen xamante léegi nag léeg nga gis nit koo xam ne day mbubboo am naa mbooloo mu bëri dajale mbooloo mu bëri te fajoo seeni aajo amul njariñ dajale xaalis bu bëri am alal ju bëri te fajoo leer na leeral yàlla ne yow ñi nga ñaanal ñëpp xaaj bi ñëpp gisuñu résultat loolu amul sens nga ñaanal juróomi nit te sëñ bi fu ñu la gisee maanaam duñ la gëmee moo ëpp solo man foofu laa nekk loolu laa gëm loolu laa gëm man léeg-léeg nit woo ma mu wóor na ma ne mënu ma koo ñaanal dinaa fexe ak nu man di dinaa fexe ba waxee moom noo xam ne du ma ñaan du ma ñaan loo parce que dama koy xam dama koy yëg itam deret jooju nag ci la nekk léeg-léeg nit woo ma téléphone ma xam ne kii waruma koo ñaanal fexe ba du ma ko ñaanal war a war naa koo tontu wala ñu waxante noo xam ne nii xam na ne maanaam dootut ñaanlu maanaam noonu la demee mais mag ñi dañ daan ñaanalaate duñ laaj dara wala tegal dara sama loxo wala nangam ngay joxe yooyu yëpp xeeti secret la yoo xam ne lu ci nekk dafa am yoonu boppam lu ci nekk dafa am lu tax ñu koy def waaw loolu noonu la demee <laughs> waaw. waaw xanaa sant yàlla rek di waxaat rek ne maanaam lépp luñ fi wax te mu jub ñu santee ko yàlla suñu borom. lépp lu ñu fi wax te mu dëng wala mu egg ci xolu nit gaañ ko ñu ngi koy jéggalu bu baax lu jub rek lañ ci jublu dañoo jàpp ni lu baax la moo tax ñu koy wax waaye bu ñu jàpp maanaam bu ñu leeroon ci suñu jëmm ji ne ab safaan la duñ ko génne ndax ñun bugguñoo lor kenn bugguñoo tooñ kenn waaye li may wax daal mooy ñun liggéey bi ñun ñoo ko bokk te boo xasee génne ci pénc mi moomatoo ko xam nga maa ngi dégg sax ay sëriñ yoo xam ne dégg naa dañuy yóbbuwaate ay pëlis ak yóbbu ay sëriñ ay di yóbbu ay kii ab sëriñ nag boo demee ba yaakaaroo ci sa bopp lu yóbbu nit police bu yóbboo nga lem say kaaka te toog mm-hmm. ah wa ah yow nit waroon a dem police wala nit ñu waroon koo yóbbu police mu ñëw ci yow nga dimbale ko ba duñ ko tëj wala nga waroon a dimbale nit ki ba bu naroon nit naroon a yóbbu police gis nga sëriñ léeg-léeg ma dégg sëriñ bu toog ndeysaan ñoom xam nga ndeysaan wax ak a jafe waaye nag booy wax ak ñi nga xam ne xamuñu loolu garaawul waaye ñi xam dinañ xam ne yow dara nekku fa léeg-léeg ma dégg sëriñ bu ne waaw léeg-léeg nit ñëw suul sama béjjën sama kër wala léeg-léeg nit ñëw suulal ma dara wala léeg-léeg nit wisal ma dara wala dañ ma doon liggéey yow léegi kon ki la yaakaar di ñaan lu ci yow te wéer la boppam xanaa kon buñ ko doon def dara ca France yow doo ko yëg yow sëriñ bi nit suul sa kër béjjën ba ba ba dem nga doog di gis ne suul nañ fa béjjën ana xam-xam am nañu waxante dëgg. Mm-hmm. ana xam-xam mm-hmm. wax da yenu maanaa. seere léegi ba may waaw da waaw waaw <laughs> loolu sax moom loolu sama waxtaan non <laughs> sama waxtaan la ak yow si sama sama sama sama kii sama sama biir loola mm-hmm. maanaam ab lépp lu jëm si ci yow danga ko koo war a xam donte fekkee woo ko. man sama oto bu waree paan sax damay xam ne bis sàngam dina paan loolu sax maanaam maa ngi jéggulu sax waaye dama lay xamal ne ab sëriñ dafa war a bàyyi diw dafa may liggéey wala diw dafa may xeex wala damay yóbbu nit police xam nga li nga war a def nit koo amal contrat maanaam ci ci côté yooyu dangaa war a toog téye sa gémmiñ téye sa làmmiñ bàyyi ko muy def li ko arrangé moom yow ngay def li la arrangé ba mu xam ne man mii laal naa ponkal est yaa ngi dégg loolu moo gën nekk ci fii di yóbbu ay nit police wala di dem fii yooyu yooyu ay affaire u tappale la affaire u ñàkk xam dara ak ñàkk nekk ci dëgg boo nekkul ci dëgg moom loo xalaat ne rek dina tax nit ñi ragal la wala dina tax nit ñi dootuñu wax ci yow di nga ko def yaa ngi dégg waaye man de du duma ma tooñ nit duma wax ci nit